ñu dëkkee village bi ñuy woowee Kër Yérim nekk ci commune Sessène nee ñu bëgguñu projet bi nga xam ni dafa jëm ci tabaxal leen ab forage seen bërëb boobu ñuy xam le ni rek lu toll ak ñeent fukki hectare ci seeni suuf moom la ñu fas yéene teg loxo foofu. xur wi bu may boone ñetti téeméeri gétt lañ fi sàmm suñuy maam fi lañ ko fekk bàyyi ko fi suñuy suñuy bàyyi fekk ko fi bàyyi ko fi bàyyil ñu ko fi ñu ñëw ba heure bii ñetti nit dong bëgg koo jaay te njaay mi. bu ñu gisoon ki ko soxla sax dinañ xam ne ku werte ko soxla wala ko bula mais mënoo ko gis d'accord uñ ci tey d'accord uñ ci ëllëg waaw d'accord tey d'accord uñ ci ëllëg xur yi fa la jigéen ñi taxane ah am na rab yu fi nëbbutu nag yi fi la ñuy lekke fas yi fi la ñuy lekke jigéen ñi matt yi day moom la ñu far di ko toggee waaw amuñu lu ñu jaral jaay ko donte sax forage amal na njëriñ ab askan waaye ñu dëkkee góoru njaareem di xamle ni ñu def lu ne ba projet boobu du antu ñu ngi dànkaafu sa autorité administrative yi ak maireu Sessène bi. woo nañu monsieur le maire waxu ci dara xale yi bind nañ ko lettre tontuwu leen wala lam leen wax du waxi dara koo ci wax dara yëguma la lay wax mbir nag mënoo nekk maire ci dëkk nekk fi sous sous préfet nekk fi gendarmerie nekk fi averti ñoom ñëpp te dañ dem ci ñoom taxaw ñoom wax leen ne leen d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg waaw. fii daal bu gouvernement bi seetaanee ba lii am ci suñuy néew la ñuy jaar dokkoo labourer. laataa nag projet forage boobu ñu ko fay def askan wi dañ leen sëddale woon ñetti millions promoteur bee def li ni mel ñoom sax ñuy xam le ni ab piège la ndax xaalis boobu bi ñu leen ko doon jox waxuñu leen li ko waral dañu jàppoon rekk ni ab waay defal yàlla moo leen doon dimbali.